ko yéen a ngi may dégg déglu leen ma pareegu ma déglu leen ma yéen xaw ma alkaati ngeen xaw ma gendarme ngeen xaw ma lu ngeen doon dama leen di xamal ni policiers yi jaaxaluñ ñu ay nit rek lañu leen rek danaa fi ñambaas tuuti foofu wax naa leen ni buñ leen di sànni ci grenade lacrymogène ngeen di dawal ku leen sànni grenade lacrymogène na nga dem taxa ci wetam nit la comme yéen bu ko mënee noyyi nga noyyi ko comme waaye tant que yaa ngi daw mu jël sànni grenade lacrymogène du sotti tant que yaa ngi daw ju ko gën a sore mu jël kanoon googu di la ko sànni yow yaa nekk ci toonu waaye bu la ko bëgg a sànni nga ñëw taxaw ci kano ci watam def ko fii ci place place de l'OUA bu leen kon nangooti surtout les jeunes surtout les jeunes ni ñuy combattre dans les autres pays pour libérer le peuple yéen noonu ngeen war a le peuple sénégalais donc loolu na ngeen vingt ci yéen suñu ñemee da nga ma dem ci ñoom dugg ci seen biir problème bi terminé bu yoree kanu gi sànni grenade nga jàpp ci bu yoree livre nga jàpp ci wala bu yoree livre nga yor chaîne de vélo parce man maa leen wax ni képp ku la door am nga la door mbokk sénégalais Mollah may ñëwaat di waxtaan ak yéen ci li tolluwaayu réew mi ak tolluwaayu Afrique ak tolluwaayu àdduna euh, bokk na ci sama laay bi lu bari damay def géopolitique une comparaison géopolitique c'est-à-dire di wone Sénégal fan la toll par rapport au reste du monde di wone Sénégal fan la tollu par rapport ak Mali par rapport ak l'Afrique waaye di wone Sénégal fan la toll ak àdduna bi parce que àdduna mu course la yaakaar naa ni duñ des suñu biir rek nekk Sénégal comme jungle people di naxante naan Sénégal moo foofu la yàlla nekk Sénégal fa la yonent ya tëdd Sénégal ñoo raw Sénégal ñoo mën Sénégal lépp lu baax rek ñu féetewu ko sénégalais ne sénégalais ne Sénégal Euh, bokk na ci live bi di delloo jaam di delloo sénégalais yi ñu xam fan lañ nekk par rapport ak monde bii di dox te ñu umpale ko wala ñu gëmm ci seen bët ne duñ ci teg bët di nax seen bopp toog fu ñu toog ak seeni rêve li may njëkk a tàmbale encore une fois mooy naqar mooy tiis mooy lu ma metti trop loo xam ni vraiment ñaari fan yii metti na ma trop te na ma xañ na ma nelaw xañ na ma lekk ba suur xañ na ma naan barke alxuraan lay waat ndax man yàlla laa gëm barke alxuraanul karim ñaari fan yii enfer lay dund enfer samay nelaw néew na lool boo seetloo sax dama ci xaw a soj ndax ñàkk nalaw dama ci am naqar ku digg duma du nalaw fajar bi la ma nalaw di dab si ci lay jóg sangu def la ma war jóg dem dóori waar donc pour wax la ni ñaari fan yëpp mun naa ne bu ma ko capitaliser bu ma nalawee cinq heures de temps ci la yam lépp lu ma teg nag ak la ma ko teg du dara lu nguur gi du dara lu dul bi du dara lu du gouvernement bi waaye muy problème mu jàmbur mooy ma def ko sama problème mu yegg ma fu sori mooy day euh, sama petit frère bii nga xam ni mooy Ardo Gning di activiste di combattant Macky Sall jàpp ko sànni ko ci kaso bi tëj réew mi mel ni amul doomu aadama bu ñu rocc ci ñun bu tuxul yàmba bu naanul sàngara bu sàccul bu fenul bu jëwul ñu jàpp ko ne ko ràpp ci kaso ca Cees te coow jibul Sénégal baltàkkul tàkkul suuf yëngul ma gis sénégalais yi ña ngay seetaan football ña ngay débattre ci football ña ngay yuuxu ña ngay tàccu te am na doomu aadama boo xam ni jekk na ci ñoom nañu ñu woon di seetaan football di bége jekkoon na nu mu ci ñoom ñu toog ñoom tamit moom tamit mu toog ci kër yaayam ak kër baayam di tàccu di seetaan Paris Paris Saint-Germain di seetaan Real di seetaan Barcelone comme na ngeen koy defe mu jóg ca Tiwaawoon bàyyi lépp lu mu jàppoon ne ma ah grand man de maa ngi dem taxaw waa Tobène village bi nga xam ni waa ICS ñi nangu seen suuf di leen forcer ne dañuy jënd suuf si par force te loolu arrangé wu leen grand maa ngi dem tàggu ma ma ne ko yóbbaale nga ma jàppal ni maa ngi fi ak yow foo tourné gis ma xamal ni maa ngi sa gauche maa ngi sa droite maay sa takk ndeer go ahead mon frère demal combattre l'injustice demal nga xeex ñaawteef demal nga xeex jaayum doole waaye demal nga xeex mboneel ardo ñi ngi jóg bàyyi yaayam ca kër ga muy mag bàyyi baayam ca kër ga muy mag bàyyi ay rakkam bàyyi ay sëram bàyyi léppam dugg ci àll boobu ñu naan tóobeen ca digg àll ba ànd ak villageois ya di acquérir seen situation di jooy ak ñoom di ak ñoom ba polis ñëw fekk leen fa ne ko dangaj jël moom ak chef de village ba ak waa dëkk ba jël defeere ca kaso ba lan lañ def loolu metti ma trop loolu naqari ma lool mu mel ni dama am benn cul damay culpabiliser sama bopp ne est-ce que du man sax bokkuma ci ñu ko tëjlu est-ce que sama traîtrise est-ce que sama traitre bi ma doon man trahiruma kooku man sénégalais toog fu ma toog ñu jàpp nit boo xam ni dafa jógoon di xeexal paysan bi dafa jógoon di xeexal néew du doole bi dafa jógoon di xeex injustice ñu jàpp ko tëj ci kaso ba muy muy seen taawu kër yaayam toog di galéré di jooy te gisul kenn ku taxaw soulager yaay ja gisul kenn ku taxaw soulager baay ja gisul kenn ku taxaw xamuñu ñu jël nañ seen doom tàggu na leen ne day dem di xeexi jël nañ seen doom tey ji sànni ko ci kaso bi loolu nag metti ma lool ba ci digg ba ci kanamu yàlla metti ma lool ba ci sama fin fond xol bi barke alxuraan ma naloo munu ma nalaw parce que man gëmm samay bët yi di ko nalaw bay yandoor di gént sa montre ko j'ai trahi cet humain mais j'ai trahi euh, Tobène le village de Tobène j'ai trahi les villageois malgré que je suis trop loin de là-bas mais am na lu ma metti lool ci digg am am na lu ma metti daal am na lu ma metti nag maa ngi koy wax xol am na lu ma metti te tey dama décidé woon sax ne damay def live ci saaga ay ndey Macky Sall comme nu mu jàppee woon këram xooxa na ma ko defee dama décidé woon tey génn sama naqar ci sama xol bi génn ko ci mettit bu may dund ci jamono jii ji nga xam ne kenn teguma ko lu dul Aly Ngouille Ndiaye ak Macky sàll ay doome xaraam yoo xam ne toog ci réew jàpp nit ya toroxal leen bañ na tott jaay leen doole nangu suufu jàmbur yi doo ubbi sa gémmiñ doo wax te ko wax nga jël sànni ci kaso ba comme si ñun ay doomi xaraam la ñoo xam ni juddoo wuñ fu ñu war a juddoo wala ci mbalit lañ ñu juree ñun dañ dañoo nampal ci ci ci ci ci weenu xaj te ñun ñii tamit di ay doomu jàmbur comme nu mu amee doomam moom ci boppam te bëggul ko jàpp doomam dóor te bëggul ko jàpp doomam tëj bëggul ko jàppam doomam toroxal muy jàpp doomu jàmbur yi ci lu mu tagul fenn dëj gaa jàpp leen jaay leen doole tëj leen ci kaso yi nii France daal di xëddeen mu mel ni dara amul metti na ma trop metti na ma trop barki alxuraan xooluma sax télé bi pour xam kan moo dóor kan moo sama lijjanti wuuma ko xawma sax Paris Saint-Germain ban maayo lañ soroon barki laa ilaha illallah bu fekkee sama bët yii xool na benn yoon Paris Saint-Germain ba xam sax équipe type wala lan lañ soloon njal na ma safara jël addiya lijjanti wuuma ko ndax am na lu ma metti ci digg kanamu yàlla ci lii nga xam ni jaay nañ ko doole Ardo Gningue tëj ko ci kaso bi au delà des villageois yi ñu tëj ci kaso moom mi nga xam dëkkul ci village baay ji dëkku fa yaay ji dëkku fa maam ji dëkku fa daraam dëkku fa mu bàyyi tiwaawanam googu dem ci toobeen di leen jàppale tey jii kaso kaso féete na ko ginnaaw kaso féete na ko ginnaaw caabi féete na ko ginnaaw métti na trop nag métti na trop encore une fois encore une fois encore monsieur Macky Sall monsieur Macky Sall gis nga na nga nu nu nu Marème Faye Sall sukkee ba jur say doom noonu la suñu yaay yi sukkee ba jur ñu na Marème fay Sall def ba nampal say doom bañ fañ far ba toll nit innamaan tam la ay ñay di dox seen soxla noonu la suñu yaay yi daj lu nekk ci kaw suuf seen bakkan xajoon na ci ñu jur ñu ñun tamit ci siraatal mustaqim nàmpal ñu bañ toll nuñ toll la nga bëggal du sàll la nga bëggal say doom fa nga leen denc fa nga leen teg ak la nga leen yàqee ak yàqte ñun aussi vraiment na na Marème Faye Sall def la suñu ndey def say ndey juruñu ay doomu xaj suñu ndey nampale wuñ ñu ci ay meewu xaj nampale wuñ ci ay meewu mbaam xuux ci ay meew gor lañuy nàmpale gor googu nag moo waral tey jii ñu jëloon sañu carte sànni la gor googu moo waraloon ñu def lu nekk ci kaw suuf rayanteeg Abdoulaye wadd ba plus de quinze am ci quinze sénégalais yuñ faat ñii ci sangal Sangalkam ñii ci place de l'Obélisque ñii partout ñii Kaolack ñu rey quinze doomu aadama yu amoon essentiel ci société bi yu amoon njëriñ ci seeni njaboot ñu faat leen ngir sa tey jii sa falu googu quinze bakkanu doomu aadama rot nañ yow Macky Sall pour nga toog fa nga toog jàkkarloo keesu ay milliards bakkanu doomu aadama yooyu nag représenté wuñ dara ci sa kanam comme si quinze xar yu ñu rey comme si quinze mbaam yu ñu tëral rendi nga ñëw tey jiitañ nga ñëw tey toog Macky Sall retourné lépp lu ñu dajoon ci Ablaye Wade la ko raw ñu ngi koy daj ci yow ku wax nga tëj Ablaye Wade sax doonul def loolu yaa ngi jàpp amul activiste boo nalawal activiste bu jóg lu ndaw ndaw ndaw lu mu wax nga tëj ko ci kaso lu mu wax salaamaaleykum nga tëj unku nga tëj maaleykum salaam nga tëj maa ngi damay ñëw dimbali ñii nga tëj jàpp doomu aadama yi di tëj ci kaso yi di tëj ci kaso yi di leen di leen tàqaleeg seen i njaboot comme jamonoy esclavage comme jamonoy esclavage bu nga dekkilaat monsieur Macky sàll ñun bu ñu lay fal wallahi ay dereti deret ñoo tuuru wallahi ay ruu wàcc wallahi ay yax ñoo damm wallahi ay nit a ci feebar ay bopp toj nañ ci ay police dóor nañu nit ba toj seeni bopp ñii tëj nañ leen ci kaso ñii maas nañ leen ay courant goney kolobaan yi luñ dajjul amul ci kaw suuf dañ leen futti taatu ne nuñ juddee woon jël ay fiilu courant takk ko seen testicule yi seen dàmbal yi di ko branché ci courant du haute voltage ba buñ ne woon tey ñii mun nañ génn doonaat góor ñëpp ne déedéet service yi ñu daj kenn daju ko ci kaw suuf waa Colobane yi ñun ñii lu ne daj nañ ko damm nañ sañu loxo ñu dugalal ñu weñ dum di faju ji Espagne ñu nekk principal ñu saboté suñu loxo yi def ko noo xam ni ba am arthrose boo ma dem ba sama damm damm am arthrose Macky dem ba yax bi ñu dóor ci bal yax bi puus ba takkaloog beneen yax bi defee nii bu ma demee ci espagnol yi dugal ko dañ ne lii arthrose la bu bi teguwul ci position am yax bi dafa tegu ci beneen yax bi il faut ñu opérer ko delloo ko pour def ko nii jël benn weñ bu gudd dugal ko ci loxo bi pour mu jàppale yax bi pour mu kolew lépp daj naa ko Macky pour tey nga falu fii opération sa dërëm sama sama Espagne sa dërëm newu ci yëgoo sax ni bu may dem ba ma nekkee Sénégal di jéem faju principal la ma daj sa dërëm demu ci xamoo sax ni maa ngi dem booba ngay falu maa ngi jaabante ak sama damm-damm buñ saboté Sénégal booba ngay falu maa ngi ci terrain bi lu gën a metti luñ mus daj ci suñu àdduna damm-damm boobu noonu ma musa am ci àdduna yow yaa ma ko teg ndax ñun ñépp dañoo ñëwoon di rayante pour Abdoulaye Wade di jóge fi jour buñ may damm am na koo xam ni bopp bi lañ xar mi ngi mi ngi mi ngi óodoo ngi lonkoo drapeau Sénégal ba fii lañ ko dóor bopp bi xar deret bi ni cas tuur ci wetu kees ku ba ba ma naan vous tirez sur le candidat maintenant lépp ñu daj ko fi am ña ca dee ñu Mamadou Diop dee ci jabaram ñàkk ay doomam ñàkk monsieur Macky sàll ba nga fi toogee ba léegi ba nga fi toogee ba léegi la famille fay sàll mooy dund la famille Faye sàll kenn jàpp leen ak képp ku rallier ci yow sauvé nga ko sàmm nga ko ak lépp luñ mën a sàcc ak lépp luñ defoon ci ñaawteef kenn laaluñu ci kenn justice topp ci kenn ñoom ñëpp nga am seen jàmm ñoom ñëpp ngay dox seen soxla ñii di ñi nga xam ne nag ñun ñoo leen doon xeex pour yow sa falu nga dimbaliñu nga defar li nga xam ne moom lañ soxla woon monsieur Macky Sall ñañu doon xeex tey ba ñuy dee ci quinze dee ci ay junni junni damm ci ay junni junni seen bopp toj ci ñii seen bët toj ci ma xam ci benn booy njaago boo xam bëtam lañ toj ba léegi benn bët la yor booy bu ndaw géejawaay la jóge di xeex di xeex di xeex ba tey jii benn bët la yor te famille amuñu dara géejawaay kër ñoom pëccoo gomis la yi logé woon luwe lañ def seen yaay yaay da doon yaayam da doon luwe luwe ab pantere def ca njaboot ga xeex ba booy bi génn di xeex di xeex ba nga patt bañ patt bëtam ba tey ji benn bët la yor booy yi di ko tooñee di ko wooyee yaanaamaar turam sax léegi yaanaamaar lañ koy wooye ndax benn bët kon bët yàqu na fa booy kolobaan ca kaso ba lañ fa daj mburu daju ko ci fuur Macky Sall buñ dajalee loolu lépp lépp ñañ doon xeex ñëpp nga jëlaat taf ci yow ñëpp ñi nga xam ni ñu daj loo dee ñoo rey mu Mamadou Diop ñoo ma damm ñoo damm ñeneen ñoo toj bopp ñeneen ñi ñoo tëjlu ñeneen ñi kaso ñoo toroxal ñeneen ñi ñoo kil ñeneen ñi ñooñu ñëpp daje nga leen tey ji ci au nom de de la transhumance nga féetale leen ci sa xol ànd ak ñoom tey ngeen tourné di ñuy xeex ñun ñi nga xam ni ñun ñoom kenn ci ñoom gaañuwul kenn ci ñoom Moustapha Niass gaañuwul kenn ci ñoom doomam gaañuwul kenn ci ñoo nga xam ne tey ànd nga ak ñoom ñëpp ngir ñuy xeex kenn ci ñoom daraam gaañuwul donc suñu deret moo tuuru nga dox ci suñu rongoñ moo tuuru nga dox ci suñu ñaq moo tuuru moo huilé yoon bi ba nga ba nga ñëw tey toog tey nekk ci président bi nekk ci présidence bi di fa yeewoo waaye du doomu Moustapha Niass waaye du doomu mm, euh, euh, keneen ak keneen yi nga xam ne tey ñoom nga àndal ñoom ñëpp ak transhumants yi nga ànd ak ñoom tey wëlbatiku di ñu xeex ñun ñun ñi nga xam ne suñu deret moo tuur woon suñu ñàkk moo tuur woon suñu doole moo tuur woon reyoon nañ ñu ba pare ak ñeneen ñu ñu rey tey nga sauvé ñooñu ànd ak ñooñu tey jii di ñu dóoraat Macky Sall di ñu dóor di ñu tëj ci kaso yi di ñu toroxal di ñu def loo xam ne ñun ku ñu ne woon ñun en 2011 2012 ku ñu ne woon ñun dinañ dundaat après lii nii nii nii nii nii nii nii tey wallahi la azim ñu taxaw waat na déedéet ku ñu waxoon ne jamono ji ñu toll nii di nga jàpp ay combattant di nga jàpp ay révolutionnaire yi nga xam ne dañoo faat seen bakkan pour yow nga tëj leen ci kaso yi Macky Sall wallahi ku ñu ko waxoon 2012 ñu rendi la ne la déedéet c'est pas possible munul ne nga dund la ñu haute trahison haute trahison toroxal peuple bi ba ma tott jàpp ñu diñu tëj ci kaso yi monsieur Macky Sall dama bëgg nga xool ma ma xool la ma laaj la yow est-ce que gor nga ma laaj la yow est-ce que nit nga ma laaj la yow est-ce que yow yow doo dëmm est-ce que yow doo vampire yow boo mu ne lekk ñu yey ñu comme léegi dëmm nga mooy lu lu lu Pakoti waxoon il l'avait dit Pakoti Pakoti l'avait que yow dëmb nga nem si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm te xaarook àjjana defoon na ci son sax ne dëmb nga Abdoulaye Wade wax nañu ko fii conférence de presse nañu Macky Sall dëmm la carrément ñëpp di ko dégg te ba léegi Abdoulaye Wade taxawul baalu ne non non wax nga ko ne ko baalu ma ci loolu nga ma tamun dëmm mu ne aw ma lu ma ciy teggi Abdoulaye Wade taxaw ne fii ne yow dëmb nga yow Macky sàll ne ay dëmm nga da ngeen di lekk da ngeen di lekk nit ay vampire ngeen loolu du du sama wax pakoti ndem si yàlla wax na ko Abdoulaye Wade wax na ko te yaa ngi jëfee jëfu dëmm ña la doon dimbale ña lay jàppale ña reyante ña jaay seen doole ña jaay seen ñaq ña joxe seen ñaq ñu joxe seen deret ñu joxe seen sang seen sueur ñu joxe seen i yàq ñu joxe seen i koor e am tey ji yaa leen jàpp di leen tëj ci kaso yi di leen toroxal ñun dinañ fi nekk di wax loo mun defal nag parce que ñun amuñu lu ñuy tiit wala lu ñuy ragal la ñuy wax boo ñu dugaloon ci tuunu xaj sax dañ koy waxaat dañ koy wax parce que mënoo fee nekk di jàpp ay nit di leen toroxal ne kenn du wax yow yay kan yow yaay kan yow yow judd ci pauvreté màgg ci pauvreté lekkoon naanoo jàpp ay doomu aadama di toroxal ak jaay doole ak tëj ci kaso yi nga foog ni di nga demee noonu mais c'est pas possible yow yow da nga foog ni ñëpp ay xaj lañ dañ la war a topp ñëpp ay doomu xaj lañ dañ la war a marsa taat yow yow tee kii le Sonko mun ba ressuscité wu ba ressuscité wu Nafi Ngom Keïta moom munu ko moom suul nañ ko c'est fini jeex na oh yóbbu nañ ndaanaan rey nañ leader rey nañ gor rey nañ jàmbaar rey nañ jigéen ju mun góor ba ba léegi France la lay xëddeen ma leen di laaj yéen senegal yi di ko laaj sama bopp ñun nii rek lañ nar a def la képp koo jóg ne day liggéey pour yéen di rayante pour yéen pour ngeen xam lu xew pour ngeen am lu xew ñu jàpp ko rocc ko ci yéen téegal maamam rendi ko ngeen toog seetaan ñun nii rek lañ nii lañ bugg a def quoi ñiy sàcc sañu alal ña ñuy toroxal ña ñuy néewal doole kenn ci ñun génn comme lu may def nii ah comme lu Nafi Ngom Keïta di def ah, comme lu Ousmane Sonko di def ah, comme lu keneen ak keneen di def. kan moo ñi me taxaw Sénégal naan gor laa kan moo mën a gis lu mel nii ñu koy def sa kanam ki lay jox information juste et vrai ñu koy tëral di rendi sa kanam après nga taxaw ne man gor laa kan moo am fitu taxaw Sénégal ne man gor laa yàlla bu taxawee ngëm-ngëm booy xeex diineel sa ngëm-ngëm dëggal sa bopp jàpp ne allahu akbar fii yàlla rekk fi ne ba ma dee yàlla naa dee ci dëgg wallahi suñu borom moo lay wër encercler man jamono jii nii ma toll nii min def mënulu ma filtin te lépp lu ñu def maa ngi koy gis lépp lu ñu def ci pexe jamono ji lu ñu ma dara mais jóg nañ ci man ba suba ak ngoon guddi ak bëccëg barki la ilaha illallah te xolal cest à karaw sax méttiwu ma karaw pour xamal leen ko nag lépp la ñuy jéem pour man mii man man Mollah Morgun sam bopp laa xam wallahi karaw sax méttiwu ma dañoo xamul dañoo bàyyul xel bari ki démb Ousmane Sonko mi ngi naan leen dama feebar ci feebar laa jóge di leen wax li alhamdulilah maa ngi sant yàlla dara jotuma <laughs> yéen doo leen dégg de yéen da ngeen ni ñii dañoo toog la def nii mu yombuleen leen lu Ousmane Sonko di def mu yombuleen leen wallahi dañoo jóg pour éliminer ñu rey ñu la ñuy wër rey ñu rey ren ñu bañ jeex tàkk bu leen yaakaar ni ñun suñuy xeex bii dafa oyof bu leen yaakaar ne suñu xeex bii suñu bakkan newu ci nguur lijjantiwul ku yeewu lijjantiwul ku nalaw xam nga ku muy lijjanti ka yeewu di yeete kooku lay éliminer du ma leen may tarfatal ay ni fu ma toll maa ngi ak set te lañ may jéemee maa nga taxaw orienté wu di leen xaar fu ma taxaw bu may live maa ngi ak bu ma paree damay jàpp bu ma jullee bu ma jullul maa ngi set bu may tëdd damay set bu ma jógee saw dem num nalaw bi metti metti metti dinaa jàppaat doog a dem te lu ñu dóor mun naa ko gis wallahi al azim lu ñu fëgg mun naa ko gis bu ñuy mujj di def seeni pexe jinne lañ ma booleel jinne jinne wallahi al azim ba ma yeewoo dama ne gént du ma ko wax parce que am na lu ci prophète bi wax gént boo géntee ba pare gént ga ñàng defal nii à droite ne subhanallah subhanallah wala ange billahi mina shaytan rajim ange billahi mina shaytan rajim ange billahi mina shaytan rajim bu la neexee nga def ko gauche def ko droite ñett ange billahi mina shaytan rajim ci armel cib gént jàpp ba pare tëdd gis Macky Sall di nekk ci ay pexe yu doy waar ma gis sama bopp ci terrain bu vague bu ngand armel bu rëy nekk à côté mooy football ak ay nit yoo xam ne xaw ma leen sax football ñu kaj bal bi ci wetu àll ci ci àll bi ci lëndëm fu lëndëm crise man Mollah Morgun ci biir gént ma dem di jëli bal bi ci ne vrox junne taxaw ab jinne créature boobu ci biir gént musuma ko gis àdduna ngand ponkal xaw ma sax ay bët ñangi ñang boo xam ni ci la daw ne def may rëkk ma daanu bu ma bu may jël bal bi rëkk jotu ma rëkk ma daanu bu ma daanu bu mu defee xàcc ne tey ma bu mu wax ci laa yeewoo bum yeewu carrément ma yeewaat yeewu ci gént gi def sama ay onze billahi mina sheytaani rajim ñett jógaat comme ni nit di géntee toogaat waat nopp li ko tëdd ba noonu laa nalawee yeewu jóg dem liggéey barki laa ilaha illallah wax ko sama benn xarit buy Alassane Diop mi ngi may dégg ne ko wallahi Macky Sall laa gént mu may boole ay jinne benn jinne heureusement bu jinne ji xàccee buñ xàccee bal bi wetu armeel yi ca lëndëm nga ba ma koy jëli jinne moo feeñu bum génn ci lëndëm ji ñëw songu ma bëggul tóor ma daanu bu ma daanoo bu muy ñëw bu muy xàcc rek furuf ma ci laa mu ne ma jinne ma ne ko jinne laa gi jinne jinne wallahi la azim ci laa ko expliqué génti pour xamal leen ni xaw ma kan mooy xeex xeex bi xaw ma kan moo toog fee foog ni ñun dañuy foo xaw ma kan moo toog fee foog ni ñun dañuy giñol giñol waaye ñun xam nañ ni ñu ngi ci guerre internationale guerre internationale ak vampire ak dëmm nga xam ne buñ sàgganee tuuti ñu lekk ñu lekk fuñ nekk la nekk di néewi di néewi ba tàkk ba tas barki laa ilaha lépp lu may yàlla moo tax ma koy wax parce que la wax nii ci xol laa ko tibbee bu amee benn tarfatal ay ni ci safaan wala ci lu dul dëgg na ma yàlla bàyyeeg noonu yi ñu faat ma bu amee benn tarfatal ay ni safaan wala fen yàlla na ma yàlla seetaan noonu yi faat ma yàlla bu ma ci génn semaine bii yàlla nañ ma tàggee semaine bi bu muy amee benn virgule fen wala caaxaan caaxaanuma fenuma foowuma te fooluwuma kenn